waaw ziar naa lu wér waaw maa ngi nuyu waa Géejawaay yëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant euh, Sa Thiès Bombardier moo waroon taxaw yàlla def na taxawul euh, loolu bëri na ci làmb euh, parce que kii ni Modou Lo bàyyi fi koo xam te dafa war a bëri moom muy Tapha Tine dem bërek Eumeu Sène. nelaw nañ parce que bi bi bi daanee te moom yàgg nay euh, laaj euh, euh, Bombardier mu di ko moytu war nañ teel a mën a kii bala muy bala muy bala balay booy bi jël combat am war nañ ki mën a teel a teel a dox loolu quoi waaw. Sa waaw Sa Thiès boobu moom waragul a mën a taxaw Tapha Tine Sa Thiès da bëggul Euh, combat ak Balla Gaye moo war a leeraat waaw Tapha Tine ak ak ak ak ak Balla moo war a leeraat waaw. waaw dafa war a dafa a jaar ci magam mbagam dafa war a kii euh, feeñal kiyam ci magam ba pare doo ko doo ko doo ko jël rakk ji waaw waaw. Ah? Eh, wax bi. Euh, làmb noonu la baaxoo chaque jour te rëg-rëg moom Sa moo ko daan Sa moo ko daan Bombardier dem jël ko ah Bombardier xam naa ne day xawal foof moo gën a nooy moo tax mu dem fa waaye bu demee foofu du nooy parce que rëg-rëg champion la comme moom waaw ah non gënul ci moom sax waaw xam naa Bombardier fee carrière la nekk instant bi day làmbatu rek bu demee ci rëg-rëg day jéem a tenter ndax dina daan rëg-rëg bu tante rëg-rëg après tourner ñëwaat si Sa Thiès waaw instant bi Bombardier dafa xam ne lu muy yàgg yàgg yàgg yàgg dina bëri Sa Thiès loolu xam na ko moom moo tax mu bëgg làmb boobu rëg-rëg pour dina jéem a wàccee rëg-rëg bu wàccee rëg-rëg delluwaat Sa Thiès en genre baax yaa ngi ah man làmb yenn saa rek ma seetaan yenn saa mi am lu mu ci dara xam ci ci ci dug ci ci YouTube ak yooyu rek ci yenn saa làmb ji bëpp nag non combat boobu man ñëpp dama yàgg ñëpp dama xaar rëg rëg sa kii Bombardier Sa Thiès man loolu laa xalaatoon sax ñëpp man mi laa xalaatoon. Ah, parce que tamit Bombardier man wax naa bëgg naa bëri Sa Thiès. waaw man wax naa bëgg naa bëri Sa Thiès man loolu lépp la ñu xaar jékki-jékki rek ne rëg rëg moo jël jékki-jékki ne rëg rëg moo jël euh, Bombardier tamit bett na ju bëri quoi parce que tamit bett na ju bëri de parce que Sa Thiès man xalaatoon naa boo ma jëlee war a jël daal sama gis-gis. heure bi xalaat ne xëy na ñàkk ñàkk ñàkk jubóo ñàkk jubóo ci ci ci ay waxtaan yooyu ñàkk jubóo laa xalaat quoi parce que dama parce que Bombardier na pour bëreeg Sa Thiès yàgg na Sa Thiès xam naa Sa Thiès xam naa du bañ Bombardier kon bu bu différence kon xëy na maa yaakaar ne ñàkk a jubóo ci wax la quoi ci ay ay gis-gis sa Tapha Tine am na ñu naan a mën a nekk mais man moom wax dëgg la man man boo bool laa Tapha Tine mooy waaw mais masalan duñ bëree non parce que sagesse mën naa naa am tamit Tapha Tine daanu ci dama wax tamit de man masalan ci roi bi lay xaar roi des arènes ñaar daan jël la jël ko foofu waaw foofu laa bëggoon mu tax jar bu yàkkamti dara ci loolu parce que booy dem buñ ko daanee tamit day gën a wàccaat quoi te ñu instant roi des ah mais est-ce la wax ku la wax Sa Thiès koy daan. ah mais dafa wóorut laa wax erreur la gi nga moom jaar gi nga moom Ama jaar xam risque la woon loolu nag waaw. que moom carrière da bëgg a terminer ci booy yëpp. bëre ak am dara mun a bàyyi làmb. léegi a moo gën a moom loolu la jàpp moom Bombardier. Ah, waaw moom moo jàpp loolu moom. waaye Reug Reug champion la nekku Sa Thiès daan na rek du champion champion la daan na ponkal bu ne ay ah, ponko rek la daan waaw fii la daan eh, kii nii ñaari géant daan na leen fi waaw daan na fi Elton daan fi Abdou juuf ñoom ñëpp ay taayu Bombardier lañ bu yaakaar ne na bu téyee bu téyee rek da daan rek mu ngi juum quoi parce que rëg rek champion la waaw. léegi euh, kon ak Tapha Tine moo loolu combat la bu Tapha Tine nangoo loolu combat la bu neex combat bu neex. Ah, non Sa Thiès bi amatul lu muy bañ parce que champion la. yéeg na ba pare mënatul wàcc parce que foog nga daan ponkal mën a yéeg parce que boo daanu ponkal doo yéeg waaw moytante bi la ñu war a bàyyi Tapha Tine am na ñoo dañ ko fi bàyyi di bëri keneen te dañoo war a bëri moom Eumeu Sène lu tax du bëri Tapha Tine te yàgg na ñoo carrière ndoo ñoo def ndoo lépp Tapha Tine amul lu mu deful ci làmb amul ku fi daanul waaw Eumeu Sène Modou Lo la moo tax du bëri Tapha Tine di dem di bëri booy ñaa boo xam te Tapha Tine na daan Modou tafaati na ko daan mu dem muy bëre booy ñaa boo xam ne tafaati na ko daan loolu yëpp seen plan lamb bu ñuy def ni baaxul quoi mooy tonto bi la ñu war a bàyyi. yow mooy ko jàppee. waaw mooy tontu laa ko jàppee waaw parce que tafaati champion la bàyyi nañ ko xel bu baax a baax moo tax bëgguñu bëre ak moom ba léegi. loolu sax combat la day daw loolu giri sax day daw loolu dañuy daw waa ji wax bi wax bi tafaati dañoo war a bëre ak moom ba pare dem di bëre ak ay ñoom Modou Lo ñoom ay ñoom Boy Niang ñoom Ama Balde ñoo ñëpp balaa nga leen a laal da nga waroon laal tafaati ba pare. Ah, sa toppu toppuñu seen plan de carrière ñoom tafaati benn Balla moo ko fi ñeme moo bëreeg moom benn Balla ak Ama Balde ñeneen ñëpp dañ koy moytu loolu may dëgg. waaw man moytu laa ko jàppee parce que tafaati yàgg na ci làmb te dafa war a bëreeg ñooñu. tafaati bu mu duggee ci làmb ba léegi bërul ak Gris Bordeaux bërul ak Eumeu Sène ah bërul ak Modou Lo loolu loolu làmb nanguwul loolu ci tafaatin làmb nanguwul loolu Lac de Guiers la fi bële ñoom Bombardier xam nga classe yooyu noonu ay ñoom Lac de kese ba léegi tanoor yi mag yi nii nangu kenn nangu a bëre moom Modou Lo Eumeu seen Gris Bordeaux lan moo tax ñiy dem di Gris dem naan Sa Thiès la ñu waxoon Gris Bordeaux da koy jëli non Modou Lo Ama Baldé ah ñoom lan moo tax mënuñu dem jëli yi Tapha Tine lamb la lamb la loolu mooy lamb bi sax booy bëre da ngay bëre sa maas waaw ah. léegi léegi fi ñu jeexalee Reug Reug noo gisee combat looy conseiller Reug Reug ci combat bi. lan ci combat bi ah, ah. Bombardier champion la day xeex te am na ngëpp bu jàppee du bàyyi waaw ay déplacement mooy daan mooy mooy tax mu daan Bombardier déplacement fexe nax ko daan ko waaye du doole ah, du fit bi Bombardier moom moom fit moo moom doole. waaw bu encaissé coup Bombardier. waaw mun na dem kaawo waaye rëg-rëg dafa gàtt pour mu dem kaawo du yomb waaw du yomb parce que cër yi dafa gàtt nu muy sukkee mun na jóge noonu mun nga ko dóor ni mu wàcc ni sax nga yaaxan daan na nga jéem ko boof moom mu rasu bàyyi la ci biir waaw nga daanu yow. merci bi. ok maa ngi delloo ziar. Ah? la waaw. Rëg-rëg ak Bombardier. non Bombardier Sa Thiès la waroon a jël parce que Sa Thiès yàgg na ko ñaan chance te loolu moo doon combat bi mais Bombardier boo xool foofu dafa xaw a siisu rek dafa xaw a pour xañ ko booy bi rek mais booy bi la waroon a bëreel ah siisu la parce que dafa siisu bañ xañ ko booy moo mais booy bi la waroon jël mais moom et puis et jàpp na ni fële mooy gën a yomb xam nga ñoom mbëri day liir combat léeg dañuy xool combat bi nga xam mooy gën a mooy gën a yomb si ñoom dem jaar dem ak combat bi nga xam day day métti si ñoom looloo looloo waral looloo waral jëlul saa kees man loolu laa gis man. ah non Reug moo gën a yomb saa kees bëreeg moo gën a mett moo gën a naqari bëreeg Reug Reug Reug Reug parce que Reug Reug seetaan na bëreem bëreem ak Reug Reug nit ñi dañ dañ daan toog fii ñun gars yi naan Reug Reug ku mu jàpp Reug Reug mu jàpp man leen man de seetaan naa ci bëreem loo xam ne bu taseeg mbër mu ko indil gétt a ŋaas day am problème te keroog muy bëreeg saa kees ñëpp gis nañ te bu ñëpp ñëpp ci nañ ko waaw staff Balla ñoom staff Sa Thiès combat bu nu bëgg jël dañ koy jël mais si kaw mbër bi ñu bëgg a jël nangu bëreek ñoom comprendre nga su Bombardier taxawoon pour bëreeg euh, kii luñ ci fay luñ ci fay euh, ñoom daañ ko bëre lu ñu laaj promoteur dañ ko fay mais Bombardier xam naa moo xaw moo xaw a wiiri foofu rek wiiri wiiri wiiri lay doon mais yàgg-yàgg day jël booy bi. Sakess Sakess mën naa jël Tafatine mën naa bëreeg Tafatine mën naa bëreeg euh, mën naa bëreeg euh, euh, Gris Bordeaux moo Gris Bordeaux sax combat la bëre ah Sakess amul ku mu mënta daal doon parce que mbër mu ko jox ñu naan Sakess lii lay bëree mais amul daan contre moom rek rek wane na ko dafa ñëw wane fula bëre bëre bi daan ah Tafatine daanuwut mais mais mais bëri fi booy bi bëri bëriwu ko bëri fi booy bëri bëriwu ko saa ku Tafatine kum fi daan boo ñaa Bombardier la fi daan deux fois te ña ak booy ñaa te boo combat yooyu jàppante wuñu comme ni saaka jàppante bëri ba bëri bi jeex Tafatine amul loolu ñaari combat bi amul loolu waaw. rëg rëg li ma koy conseillé ci combat bi mu teey rek Bombardier moom kuy bëreeg moom. bu ko jaay maa la doole maa la daa ko dóor da ngay liir combat bi naq ci biir combat daan ko ci biir combat noonu rek noonu nga ko mën a daanee. waaw nañ ko. amateur waaw amateur laa waaw. kooku du yoon wi waaw euh, yoon wi Reug Reug moo ko Sa ñoo doon bëre Sa moo daan Reug Reug ko affaire bi foofu la woon Bombardier dafa waroon a may Sa Thiès waaw combat bi diggante Sa Thiès la woon ak Bombardier mais foofu ñu ko dugal du fi affaire bi moytula rek yoon la ah da ko ah moom lay nu lool kay bu kuy nampi baaraamam sax xam na lool loolu moom moytu yoon lañ koy wutal rek moo gën bokkuñu Sa Thiès ak Reug Reug bokkuñu bokkuñu bëre bokkuñu